lahi mi ne seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim yàlla julli si yonent bi sant suñu ñaari waajur di sant kilifa diine ak kilifa aada eh, di wax ne tey teewaay lu ko waral mooy ku ne xam na ne dafa am lu xew si réew te li si réew mi te mbiru suñu borom la te lu borom bi dogal kenn mënu si dara ñu waroon def open press te ay jullit lañu am na loo xamante ne bu dalee suñu kaw dinañ leneen lu dul ay open press wala leneen lii nag dafa munta ñàkk li tax munta ñàkk mooy faaw ñu jaale ñi nga xamante ne nii xam nga ñoom ñoo ñàkk seeni njaboot di ko jaale président de la république di ko jaale ñépp di ko jaale monde entier di wax ne tey li am nekkul loo xamante ne lu ñu gën a la waaye lu borom bi dogal jàmm munu si dara di ñaan yàlla suñu borom bi rek accident yi xam nga waaw mu mu ñu yebale ko foofu te dee mënut a ñàkk mais yàlla ñu yàlla may gudd fan ak wér gu yaram rek may ko bépp doomu aadama may ko mbooloo mu jullit. Uh-huh. aw maa ngi nuyu suma grand Lirou Diane moom nga xam ne monument Guédiawaye la. xaj na sànq la doon nuyoo noonu pour ñaanal ñi génn àdduna mais faaw ñu nuyu leen ñoom tamit ku si mel ni suma grand livre maa koy nuyu bu baax a baax a baax di nuyu Assane suñu grand nga xam ne moom seetaanuñu si dara di nuyu suma doomu nday booy sëy suma tambour major Cheikh Ibrahima maa ngi koy nuyu bu baax di nuyu ñëpp daal salle bi ñi teew ñëpp maa leen di nuyu xam nga soq suma adversaire la comme yeneen adversaire yi làmb moo ñu boole te dañuy bëre incha allah la 14 yàggatul doole nag du lu ñuy wax rek doole lu ñuy jëf la te yaakaar naa ne am benn volume bi rek taxul nga am doole quoi waaw ñi ngi xaar la 14 daal incha allah. waaw Mbadé li nga wax noonu am na solo mais noo bëgg a wax leen di jox comme confiance. supporters yi li ma leen di jox comme confiance ñoom gis nañ ko mooy wàllu entraînement yi. tey bu fekkonte ne si wax kase laay def maanaam ñoom du ñu am confiance mais dañoo gis coono yi ma daj dañoo gis li ma liggéey parce que combat bi dafa ma jaral lu bari combat bi daf ma jaral lu baree baree baree bari daf ma jaral ma dëxuñu liggéey parce que dafa am ñoo xamante ne dañoo nekk suma ginnaaw su ma jugee ñu jug kon du ma def lu dul rayante góorgóorlu waxuma sax la 14 mais li nekk suma kanam si làmb ma rayante si parce que suma jugee dañuy jug loolu kese la jaajëf. waaw Abu maa ngi fay di la siyaare bu baax ñun ay doomu géejawaay lañu ku xam géejawaay xam ne géejawaay yàgg naa duma Pikine làmb nag moo baaxee woon nii day gudd yoo xamante nii. li Ndongo Lo wax ndaanaan bu daanoo foog coow li bari ki daanu mooy ndaanaan mooy Balla Gaye 2 mais li si des mooy sama diggante ak soox prolongation bi la wax yàlla nañ si yàlla yóbbu ak jàmm. si li góor du ma jaay suma àdduna li ma wax loolu dara du ko dindi bi ma nekkee xale ba ni ma toll nii góor suma jaay doole góor suma jaay fit te soox amul doole bu ma jaay. li may wax daal mooy insha allahu bi la 14 yàlla may ñu ndam lu seddu guy te insha allahu rabbi dañ koy am bu neexee yàlla. gis moom sooku dugg am ko fi defet bu dee ko géej waaye léegi daan na fi plusieurs trois litres mosu fi que maanaam mooy ki nga xamante ne moo a freiné sooku wala. man taloor yi ma daan pikin sooku daanul ñooñu géej man dama daan xaadim saar mu nekk pikin nekk champion. Pikine kenn daaw ko fa bëre daan fa naaw sokaas daan fa laay bee comprendre moom li ma ko wax rek dama koy daan ba pare joxaat ko ndigal comme dafa bari wax dinaa ko daan jox ko ndigal dafa am loo xamante ne moo ñu ñor nii mooy comme ni ko gars yi loolu nañ bàyyi ba le jour la 14 yàggatul de tey la mardi la 14 yàggatul yàlla nañ si yàlla yóbbu jàmm soxul li muy wax si làmmiñam la yam déggoo ma de du ko jëfee te incha allahu rabbi maay xeex maay bëre maay duma maay daan incha allah. tey wax lu ma mës a wax journaliste mooy bi may soog a dugg si bëri. fekk suma mag nekkoon si réparé daaw ak ñoom Pape Thiam numéro un ma ñëw dugg si sama yaay ma ñëw ne ko damaa am combat mais grand combat laay bëre mba parte mu ne ma moom nag fitam moo koy rey ndax bi mu nekkee xale ba léegi lépp lu mu mos dugg rek fitam lay demee quoi daaw daaw sax bëreegul grand combat nga naan da bëre grand combat ma ne ko incha allahu rabbi dinaa bëre grand combat te dinaa daan te noonu la demee kon luur jaaxaluma mbapat bu ma mësaa dem poids lourd laay bindu comprendre amul benn poids bu ma jaaxal soxu poids lourd yi ma bëral ñoo ko ëpp doole foofu laay Pythagore daf koo jàpp duma ko daan ko jàpp magam duma ko daan ko bi mu daanee soq si man la ñëw maa ko freiné laay laay Pythagore laay Pythagore fonkal la waroon fonkal waaw kon soq du ma si lenn benn journée moo ñu boole rek te incha allahu rabbi léegi mu jeex bu neexee yàlla. waaw sëriñ maa ngi fay di la nuyu bu baax a baax li waral ma tukki du soob li waral ma tukki mooy staff yi ñoo gis ne dama war a tukki moo tax ma tukki dem Maroc def fa deux mois yu parce que li ma fa waroon def sax defuma ko dañoo amoon signature loolu moo tax ma dagaat beneen billet ñëw mais comme li may wax rek soq taxul ma may daj dara. man li tax may daj dara mooy samay supporter li tax may daj dara mooy waa géejawaay li tax ma rey sama bopp mooy ñi nga xamante ne su ma jugee ñu jug mais soq taxumaa jug du xeeb du dara parce que bi may bëreeg Nokoré la bi ma waxee Nokoré la taxumaa taxumaa jug kenn contesté wul dañ ne mënu koo daan rek comprendre nga mais soq ku ne xam na ne àgguma fii si bëri te bu la 14 incha allah comme question bi nga laaj moom laa lay tontu nii. bu la 14 dinaa ko si duuma dinaa ko daan nga xam ne ñi si kanam. ñoo tax may rayante mais du soq ndax dafa am feneen fu ma teg sama bët waaye. sa slogan yow mooy. waaw maa ay loolu ñëpp xam nañ ko. su ma jàppante ak moom mu ne gardien bi bu tëjee tijji mu jàpp ma daan ma ne ko moo tal ay waxu gardien mais man talu ma ko man li ma tal mooy li ma séq ak moom mooy la 14 ndax dafa yàgg taxaw fu ne li ma laaj pour bëri ak man comprendre mais la 14 dina leer. du xeex du bëri maay duma maay daan incha allah. ñu ngi doon ñu question yaakaar naa wax naa la teg si loxo supporter yi rawatina moom ñu jaan ana tey loo koy convaincre bu mooy ndaanaan mooy wax ndaanaan bu daanoo foo coow li bari chaque samedi ak dimanche am ku daanu mais ki daanu mooy ndaanaan tey bu daanoon coow lu du nii de yàlla xam na loolu parce que da naan ah def na fi lépp Balla Gaye mënul def lu mu deful woon mook Boy Niang ak solol waa di sport sport moo demee noonu Boy Niang daan na war na koo mën a daan parce que liggéey na lu tax mu war a daan Balla Gaye Balla Gaye mooy ndaanaan rek moo waral tey xam nga bu daanoo coow li lay bari waaw mais nag xam nga yàlla baax na daal li si kanam rawuli bët bala 14 incha allah. waaw salaamaaleykum. maa ngi bu baax a baax. c'est normalement ànd ak confiance parce que li may wuti ku koy wuti boo amul confiance nga bañ koo wuti moo ko gën ndax boo duggee si dara te dama woo si fit dama woo si jom dama woo si jàmbaar jarul si dugg ndax bëri jàmbaar moo koy def ak jom comprendre nga. li ñu war daal mooy xam nga la 14 ñu ñëw jàpp waa ji du ma ko daan ko loolu kese la amul leneen. si wàllum jàppale bi tamit. biir ni ñuy jàppale yeneen mbër yu mag yi. ñoom Balla Gaye ñeneen ba am ci jàppale boobu yoon waaw maa ngi sant yàlla mais des na xaj na mooy li ma wax léegi rek Balla Gaye tey toll na foo xamante ne tollaguñ fa du ñu naataabule suñu bopp ak moom mais képp koo xam ne doomu géej waaye nga rek am yéene ne war naa mën a jàppale géejawaay rek boo ñëwee jàppale ñuy xam nga waaw dañ soxla nañ ko quoi comprendre ñun gis nga fii fii nii nga nekk nii fii yëmbal la amul xor moom moo nekk fii pourtant bu ko mu ne yëmbal laay représenté mais diggante fii ak géejawaay benn la quoi mais terewul daf ñuy jàppale comprendre nga dañu taxaw salle bi gis nga démb laay soo wax ak Malick Ngom yi ñu jàppale ma si loolu comprendre nga Xafoor Touré moom it jàpp na si affaire yi bu baax suma doomu nday jii nii booy say moo Xafoor benn lañ quoi mais Ahmed Aïdara moom it ñu ngi koy xaar pour mu jàpp si mais jàpp ko si quoi comprendre nga te dafa war a ñëw waaw ay doomu Géejawaay lañ ñu ngi woo Pape Mama Fall bu baax moom it mu ñëw jàpp si xam nga di woo Abdou Aziz Ndiaye bu baax di woo Baye Ndiaye waaw Kor Ndiak di woo waa Géejawaay yëpp waaw di woo Racine Talla monsieur le mu ñëw jàpp si monsieur le maire Bara Gaye moom it ñu ngi koy woo pour mu ñëw jàpp si parce que ñun xam nga waaw ay doomu Géejawaay lañ quoi te am na loo xamante ne nii bu ñu xewlee gars yi war nañ mën a def teew pour jàpp si ndax Géejawaay la ñuy représenté jaajëf waaw di woo Lat Diop tamit Lat Diop ñu ngi koy woo mu jàpp si combat bu baax a baax a baax ñu ngi woo Lat waaw. leen fay bu baax maa ngi xaar revanche boobu mu ñëw jël si ko parce que moom moo taxaw wax ko ne leen bu ñu bëri naan soxnaas mi ngi si cubukaay bi ma daan ko mu jooy jooy métti te xam nga dañoo wax ne boo jéggee xal ba tëb des na la beneen tëb. waaw kon des na beneen jooy pour moom. macha allah mu des sama kan nit kese la ci fanaan la jógee daanu tooy daanuwaat incha gëm-gëm la bu nekk si man maa ko tàkk bu bëri maa ko ëpp fit maa ko ëpp kàttan du rëy jaaxal na moom. marle bi ñu daan gis terrain bën bën marle bi ñu daan gis école 25 mbapat marle bi ñu daan gis terrain xonke marle bu raw boobu sax mooy ñëw parce que mooy li ma ko wax rek combat bii nii dinañ xeex dinañ bëri man damaa mbapat dama daan toog vendredi samedi dimanche damay jël saaku teeb sama waa gaale pour ñu jël ceeb sax problème la bu mu ñëw sama yaay day jël benn bu tas ko séddale ko waa kon bi yeneen ni mu bàyyi ko si biir kër gi man sox musuma dégg fu mu man du ñu benn de wallahi du ñu benn bërëy sax du ñu benn mais insha allahu rabbi bu la quatorze lay xam ne lépp dëgg la ñu daan gis da am taxaw tudd nga am lu mel ni sox est-ce que marne la lu bu suba def lu ko gëm-gëm lañ am te gëm-gëm moo nekk suñu gëm-gëm boobu moom la ñuy demee ba keroog ñuy génn àdduna ak si lépp lu ñu mënti nekk nag nekkul si làmb kase rek lépp lu ñu mënti nekk gëm-gëm lañ demee ndax àdduna lépp jixaat la loo jixaatul rek doo ko am lislaam sax bi muy taxaw jixaat moo tax ñu kon dañuy jixaat ñun amuñu tànk ginnaaw ñu ngi ñaan daal yàlla suñu borom bi mottali jaamam yàlla ñu mottali bis wa rek yow am si ndam bu seetlu bi sa diggante amul wax lan la. waaw amul xool suñu ganaar moo ñu yar fi xaj na jàng bi mu jàng woon ak liggéeyam moo taxoon mu génn mais ku ko xam-xam ne mu yëmbal la ku ku maanaam ku waa yëmbali safoo la quoi parce que nekk na koo xamante dipp bi mu ñëwee yëmbal am na beneen tànk bu mu taxawee ñëpp ñu ngi koy bàyyi xel. ñëw na def fi loo xamante ne nii tamit xam nga ñëpp yëg nañ ci seen bopp quoi ndax lii mu def nii yombul nga nekk koo xamante ne nii faale woo daraay politique Amadou Xom bu ko neexoon du politique. xaj na dan naan nit boo demee ba tollu fenn fi faaw nga sa gox Amadou Xom bu ko neexoon du mu toog ak njabootam li mu yor mun na see dund ba dee yàlla yéex te du jeex. mais nag dafa ne xaaral ma ñëw gëstu ñi nga xamante ne nii ñoom ñoo may waaw samay rakk samay yaay ak samay jarbaat ak ñëpp te bi mu ñëwee tamit gis nañ ko kon du ñu def loolu di ko sant di ko gërëm di ko ñaanal gudd fan ak ñoom Malick Ba ak gars yi nekk centre bii nii yëpp xam nga di leen ñaanal ak yëmbal gépp di ñaanal géejuwaay gépp tamit di woo waa kër waa Kër Massar waa Tivaouane Peul waa Thiaroy xam nga ko koñu légal maa ngi woo ñëpp di gërëm Babacar Diop directeur maa ngi koy gërëm bu baax a baax a baax di ko woo si combat bi xam nga moom mi ngi am parti mouvement jàppal ma jàpp doom nday alima xam nga maa ngi koy woo daal pour mu jàpp si affaire bu baax Babacar Diop jaajëf. dafa jox si wàccuwaay bu baax gis nañ tey géej waaye bu bismillaahi rahmaani maa ngi jaale bala wax dara dama njëkk a jaale sunu mbokk yi yi wàññeeku ci accident bi am ñu nekk ci dëj décret wàcc président jox ko trois jours tey soo gisee mu demee nii xam nga loolu moo ko waral ñoo ngi jaale képp ku ci wàññeeku di masawu ñëpp ñoo ngi masawu ñëpp di jaale ñëpp ndax dañoo nekk ci dëj waaw ñoo ngi jaale ñépp àdduna bépp ñoo lay jaale képp koo xam ne rek bokk nga ci accident bi wala nga am sa mbokk mu ci bokk rek ñoo ngi lay jaale di ba ci di président ñoo ngi koy jaale di nuyu waa Géejawaay gépp di nuyu waa marché bu bees di nuyu waa Alba Alba maa leen nuyu di leen gërëm di leen sant ndax xam nga ne tey lii am moo waral mu demee nii mu nekk ci saal tey su dul woon loolu ca terrain ba nga ñuy fekk te tubaarikàlla macha allah maar la su jógee xale yëpp jóg xale yi Alba jóg xale yi Géejawaay jóg xale yi Yëmbay jóg fépp. ndax tubaarikàlla macha allah maar lay xam ngeen ko kenn du leen wax kuy maar wax naa ko chaque jour maar lay yaa ay ci luur xale yi woy nan ko man ma wax ko te noonu la demee li nga koy ñaanal yàlla lafal ko cat te musal ko ci saytaane at làmmiñ xale la waaye xale bu gëm boppam gëm boppam man du ànd ak ragal du ma ànd ak cuune man du ma ànd ak como déedéet damaa ragal gàcce ñemewuma gàcce déedéet du caaxaan barki sëriñ Bamba Mbàkke li ma la du caaxaan man du ma ànd ak ragal du ma ànd ak cuune du ma ànd ak como li ma koy ñaanal yàlla ko yàlla lafal cat te li may ñaan autorités yi dëkk Géejawaay laay ñaan man waxuma intermédiaire kenn jaar ci man jox ma dama joxal maar la déedéet damaa bëgg ngir yàlla ak rasuulillaahi Ahmed dara yaay meeru Géejawaay yàlla fi yàlla teg li ma bëgg nga ñëw jàppaleel ma xale bi xale bi su jógee Géejawaay gépp jóg yëmbal gépp jóg marché bu bees sëñ Assane bàyyi laay daaru xan ñëppay jóg caaroy ñëppay jóg li may ñaan ngir yàlla yàlla fi yàlla teg yaay meeru Géejawaay ñëwal jàppale Marley keroog wax na la ko nga ne ko naa ci jàpp woo na la ba sonn jëloo ko li may ñaan nga ñëw nga jàppale Marley ndax da koo soxla Géejawaay la ak Pikine te bëgguñu supporter euh, euh, soq yi ëpp lañu dara géejawaay ndax gaynde mer la fanaanoo te moom maar la mii am na lu mu denc man it am naa lu ma denc ah oui du ma ko nëbbu non non non am na lu ma denc sa biir xol te su lu bis mu yàlla yóbboo la 14 ak jàmm la 14 ak jàmm ngeen xam loolu lépp dëgg la nga xam ne gaynde mer la fanaanoo la nga koy ñaanal yàlla fa ko li man daal li may ñaan autorité nekk géejawaay ñëpp nañ ñëw jàppale ko Aliou Sall moom la fi yàlla tegoon muy meer xale yi ku ci mës a am combat di yàlla jàppale nekkatu fi nag mi ngi bay waar su fi nekkee Sénégal dinañ ko wax ngir yàlla mu ñëw jàpp ci combat bi Lat Diop ñoo ngi lay woo gis na ni ngay jàppale xale yi Guédiawaye gis nañ xale yi ku am combat ni leen di jàppale bëgg naa ngir yàlla ak Rasulullah Lat Diop directeur LONASE gis naa social yi ngay def Guédiawaye gis naa ni ngay jàppale damaa bëgg ngir yàlla ak Rasulullah sama waay la Lat Diop sama waay la damaa bëgg nga ñëw jàppaleel ma Marley dama bëgg nga jàppale ko ndax dañoo bëgg jënd ay bii moom soxlu xaalis ay billets la soxla ay billets la soxla dama bëgg ngeen jàppale ko jënd nga jël ko ay billets monsieur le maire nag yow la fi yàlla teg yaay maire de ville Amadou Hott mii muy wax nekkul maire u Géejawaay yëmbal la dëkk tamit tey xoolal lu rafet lii mu def dama ko naw yëkkati saal bu toll ni jox ko te mi koy jàppale. ba pare di yëkkati alalam ba pare di yëkkati alalam di ko jox Amadou Hott loo bëgg yàlla la ko yàlla defal. lii ñu def lii nga defal maar la dama cee kontaan te li nga bëgg incha allah rabbi di nga ko am nit du la ko tee am nit ku ne sa gox nga am nit ku ne fa nga dëkk nga am nit ku ne fa ngay fa ngay tiitaroo nga am kii maar la su jógee ñëpp jóg su jógee ñëpp jóg damaa bëgg ñu jàppale ko autorité rek Guédiawaye ñu jàppale ko maa ngi ñaan ñëpp ku autorité ku dégg sama baat nekk autorité Guédiawaye nga jàppale maar la mii waxuma nekk intermédiaire man ku ma woo laaj ma numéro am ma jox la ko nga jàppale ko man loolu laa soxla ndax moroomam nawleem lay bëreel te nawle war koo yóbbul dara ca stade ba te borom jom la am na fulla am na fayda gëm na boppam du ragal nee naa la man du ma ànd ak como man du ma ànd ak ragal déedéet damaa ragal gàcce moo tax te bëgguma defet yàlla ko yàlla suturaal gii li na ngeen taxawoon nii gis naa ko xale yu Géejawaay xale yu marché bees xale yu alba xale yëm lii tey xam nga ne su dul woon dëj bi tubaarikàlla macha allah fii kenn fi xaj marché bees ndax xam naa ne fonk ngeen combat bi te bëgg ngeen combat bi ñoo ngi koy ñaanal yàlla defal ko jàmm ba déwéy naa daal dimanche yé samedi incha allah rabbi la 14 xale yëpp yéen ñëpp ngeen seen mbër mu dugg ci biir géej wone fulla at fayda at jom ndax loolu lañ ko xamee. waaw grand Liou question ba léegi tontu woo ma. leer na c'est clair yëpp ñu jàppale ko xam nga ne bis bi daf ñoo ñor bis bi dafa am fu ko teg bis bi dañ ko fonk. bis bi dañ ko fonk bis bi dafa am fu ñu ko teg bis bi daf ñoo ñor moo tax may woo autorité yëpp ñu ñëw jàppale ko may woo autorité yëpp nekk yow ñu ñëw jàppaleel ma Marley ndax Marley borom jom la bis bi daf ñoo ñor dimanche passé dañoo duggoon Pikine mu am na mu demee la 14 yàlla na ci yàlla yóbboog jàmm yàlla nañ ci yàlla yóbboog jàmm ba tey ba ba tey li ma naqari man jeexul déedéet xam nga ko jarul ma koy wax xam nga ko man daal essentiel la 14 maa ngi bëgg yàlla na ni yàlla may ndam lu sedd guy ci kaw Sokh ndax bëgg naa autorité yëpp nag ñu ñëw jàppaleel ma maar la man loolu donc laa awma dara lu may wax lu lool ndax tey ji loolu la loolu la soxla maar la su geesoo gis tribune mu mu xam ne yëpp ay fan salam ah dina def ba def lu mu mënul nit ki loolu la am nit ku ne fa nga dëkk am ñun géejawaay la ñu am géejawaay la ñuy tudduroo damaa bëgg autorité ñu ñoo jàppale ko ndax combat bi daf ñoo ñor combat bi daf ñoo ñor daf ñoo ñor damaa bëgg ñu ñoo jàppale ko. ma ne moom la mu jëlee parcelle moo ko waa parcelle la ñun Guédiawaye la ñu am Guédiawaye lañ dëkk su dimanche samedi di leen xam ni soq mi euh, soq am na bis te bis bi lu mu ko fonk ñun ñoo ko gën a fonk tey jii xam nga suñu am ba defee da nga gis mbaru Guédiawaye yëpp ay teew yëpp ay teew. waaye tey ni mu demee dëj bi moo waral mu demee nii mu demee ko nii waaye tey su suñu woon euh, dëj bi open de presse lay lang fii képp kuy mbër génne way ñu ko fi gis waaye li ko waral dëj bee tax suñ samedi samedi daal yàggul yàlla nañu yàlla suturaal ba samedi jàmm incha allah ñu ñëw fecc fecc mi bëre bëre bi xeex xeex bi daan daan bi ñu ñëw génne way alba ko non non laay waxee xol laay waxee sama xol moo fees jërëjëf champion di ndaanaan sama rakk man bis li ko maar la waxee ndaanaan su daanoo foog coow la bari combat bi bett ma lool man li may jooy maa ko xam ku xamul na xamul waaye li ma doon jooy man maa ko xam man maa ko xam jaruma koy leeral kenn jaruma koy leeral kenn li may jooy maa ko xam mbër mi xam naa fi ma teg te moom xam na fi ma ko teg waaw mbër mi xam na fi ma ko teg te moom xam na fi ma ko teg xam nga ñu bëri dañ naan jooy àggu ko fenn ndax gisuñu rongoñ man noonu laay jooyee man noonu laay jooyee man su may jooy jooyu xol laay jooy jooyu xol te defet bi daf maa bett daf ma metti daf ma bett te maa sote barki sëriñ Bamba ma daf maa bett daf maa bett waaye nag ba samedi ak jàmm su samedi sama rakk dina ma fayu lépp sama rakk samedi dina ma fayu lépp yàlla na ko yàlla musal ci cat yàlla na ko yàlla musal ci làmmeñ yàlla na ko yàlla musal cet yàlla na ko yàlla musal la maa ngi bëgg daal autorité nekk Guédiawaye yëpp nan ma ñëw jàppaleel Marley sooba yàlla samedi yàlla may ko ndam ñu ñëw Guédiawaye feete ko ndax daal soxla nañ ko instant yi soxla nañ ko jërë ngeen jëf waa Alba maa ngi woo rek moo njaay directeur baax a baax pour nga ñëw jàppaleel ma sama rakk ji ndax daal bis bii soxla nañ ko Amadou Hott ñoo ngi lay gërëm bu baax de sant ndax ni nga jàppalee Marley gis nañ ko su la neexoon li nga def nga bañ koo def dangay ngay bëgg sa gox bëgg sa réew amuñu lu dul Guédiawaye amuñu lu dul Guédiawaye ñun Guédiawaye la ñuy tiitaroo Amadou Hott pour yëmbal lay présenté yëmbal lay présenté te am na oto yi nekk fii Guédiawaye ah nañ jàpp jàppale maar na te yàlla tax dañ koo war a def bu ko def dañ ko war a def bu ko deful dañ koo war a def ndax doomu Guédiawaye la Guédiawaye la lay présenté jërë jëf waa Alba jërëjëf waa Guédiawaye jërëjëf